mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaara di leen di jiital ci siyaar bi ak nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko lool te wéral ko waaye di siyaar baax ko nam ba di sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda ko lool eh, te wéral comme ni ngeen ko gis rek ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha jox na ko eh, maam Cheikh Ibrahima Fall di ndigal li koy jiitu mooy yaatal corniche bi waaye ginnaaw bi ñu yaatalee corniche bi sëriñ bi wax ne dafa bëgg fépp foo xamante ni yaataloon nañ ko ñu samp fa garab kon tey ji ci samedi ji tombeeg le 29 juillet njabootu maam Cheikh Ibrahima gépp jukk xëyee fi nga xamante ni mooy euh, garage fii ci rompoin bi ànd ak mboolem njaboot gi waaye ànd ak waa Eaux et Forêts waaye ànd ak tamit euh, Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhlaq ak waa Touba ci kanam Serigne Abibou Mbacké ngir liggéey bi nga xamante ni euh, Serigne bi liggéey na ko maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ànd ci ñoom ba liggéey bi jàppandi tey ji lañ xëy ngir gas kam yi nga xamante ni fii la war a jëmbat garab yi suba incha allahu rabbi dinañ jëmbat garab yi ànd koog yéen fépp foo xamante ni rek toll nañ ci incha allahu rabbi dañ ko fas yéene ànd ak yéen kon ñu ànd ak yéen dugg ci biir liggéey bi xool liggéey bi ni ko mbokki taalibe yi di defee àndaat ak yéen jërëjëf La la laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah faa laa ilaaha illallaah laa ilaaha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 la ilaha la la la ilaha la la la ilaha la la fa la ilaha la la la ilaha la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Darou Bairé Fall TV sëñ Fallou Fall jëriñ sëñ kàddu yu sëñ bi di nuyoo ak jëntam ak ngërëm jox maam Cheikh Fall mu sëñ Mountakha Mbacké Xaadimu Rasuul ak sëñ Fall mu sëñ Modou Mbente maam Cheikh Fall te jox ko mboolem ku yaakaar réew liggéey bi moom bokk ci jamono loolu léegi rajo baa ngi nii di wax te ñëpp koy dégg te yeneen ñëw gi yomb na ndax bu yafa ngi fi onance mu ne nga fi mu ne garaama ma def agsi rek yomb na sëñ bi nag kaay lu mu wax muy kaay la jël rek kon mën a ñàkk jël si te bu ko ñëwee bu ko ñëwee loxo loxoy nen wala liggéey bu garab moom ay pel la ak ak ay sewo ak ndox ak xéewal yoo yu ma taxaw ñu koy liggéey nag ak xéewal xéewal rek baax na ñu koy may jàppe rek suñu daal liggéey bi tàmbali nañ ko tey yii dafa bëggoon ñu gas garab ñu gas pax yi fanaanal ko ba suba jàmm ci dibéer yi ñu fay tàmbali njëmbat kon nag fay mën na te dégg rajo bi mbaa gis rajo bi waajal te ñëw mbaa nga yónnee mbaa nga yónnee mbaa nga ñëw sëñ baa ñaan sama borom dal na garab gii mel garab gi mooy mooy garab gu ci tuwa Tuubaa Tuubaa mooy mooy garab gu ci àjjana mënoo sëñ Tuubaa duppee Tuubaa dëkkam bii kon nag garab bi àjjana yi mu taxaat yeesalaat fii kon nag suñu garab yi nga xam ne mooy suñu garab yi dëkk ba muy àjjana nun ko yeesal loo kon ñun ñëpp nu ma si taxaw boo mel na ko suñ bëggee su ma leen bëgg rek sama defal leen bëgg moom suñ bàyyi woo ñëpp nag góor jigéen mag a ndaw waa réew mi waa bitim réew bàyyiwul kenn fu mu rëdd ne mbaa si yaakaar ne si serafal bàyyi na mu jàppoon te xëy si liggéey bi suba la ñu tàmbali njëmbat li waaye tey moom dañoo gas baax yi rek di ko tàmbalee ngir fanaanal ko bu subaa nu xëy tàmbali ko kon mu rëdd ndigal laa ngoog jërë ngeen jëf jërëjëf ay garab la bayaxtoo fil bahri tahta sajara wal bahru musbidun wa hawli fajara ñu fab ko yóbbu ko dunab maa ba mook sambalaw be njaay sibooru bamba al bu la tud il di bari xerem lool njuuma yaaki soroke foofe la ñey la coy yay wax di yuuxuy xaacu laki faraase sebtu ay saak saajo ñu sani leen ci doj wu tudd wiir wiir samba di wiir wiiri sëriñ bay sax weer ci garab faw ñu jëmbatal ko sëriñ bi ndax daa yàgg lool ca suufu garab ga waaw juróom-ñaari at wala wala juróomi at am na ko ca suufu garab ga ca Maayomba moo tax mu bindul bayt woowu bayaxtu woo fil bahri tahta sajara wal bahru musbidun waxaw hawli fajara yàgg na lool ca suufu garab ga ay ca

waaye ànd ak mboolem euh, mbokki taalibe yi euh, topp liggéey bi ba heure bi nga xamante ni moom la ñu wàcc euh, ngir fas yéene waajalaat suba xam ngeen ne suba programme suba bi mooy jëmbat garab yi ci niñ ko waxee woon. waaye dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni Serigne Fallou moom sëñ Modou Aminta Fall soññee na ko ci mbooleem taalibe yi ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax liggéey boobu nga xam ne Serigne bi jox na leen ko te suba incha allahu rabbi mboolem kuy bàyyi Fall. Euh, rawatina mboolem kuy murit rawatina ab jullit euh, ngir teew ci liggéey bi nga xamante ni euh, mooy liggéeyu am di fal moom Serigne Modou Mbenn boobu comme ni ñu leen ko waxee woon rek di sant bu baax tey gërëm mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi àndal liggéey bi muy waa Eaux et ak waa ak waa Touba ca kanam sëriñ Abibou waaye di siyaar baax tey ñaanal sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall kon noonu lañu fa yéenee ànd ak yéen rek suba incha allahu rabbi ci jëmbat garab yi nga xam ne eh, sëriñ bi moo ko digle ci corniche bi eh, dara du leen ci rëcc incha allah ak Souleymane eh, ñu dem ak sëriñ bi bàyyi leen ak sëriñ bi di sajib daxawti bi maa faaxa sanni wa bi maa faaxa rabbi kullu sunu ni